alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb ajjumay tey jii la ca gën a fës Mohamed Ali Diaye ma ngay ñëwaat ci combat Reug Reug Sa Thiès xam ne ne ca combat boobee ñu bëri nanguñu caa jox favori waaye man joxe naa ca favori kii di Reug Reug moo cay favori ci kanamu Sa Thiès la ko waral mooy mbër bu complet la te kii di Sa dafa manqué compétition kii di Reug Reug nag boo ko xoolee ci wàllum MMA bi nekk na sport boo xam te ni lu ko yokku la te adversaire bi mu doon ci kanamu Sa Thiès Sa Thiès am adversaire bu mel noonee ñu ñëw ci Modou Lo di ko jaale ki nga xam te ni moom la ñàkk di Ngouda nekkoon porte parole bu écrit Rock Énergie suñu laamu ñuy xibaar ne génn àdduna ni ki mercredi bi ñu génn ci hôpital dalal jàmm ñu ñëw ci ki nga xam te ni am na ndam lu rëy moo di Tonnerre suñu laam mu ñu xamal ne ndam li mu am moom la Dragon Rouge de Pikine mbooloo am na feneen fu mu koy yóbbu suñu laam mu ñu xamal ne dina defaraat carrière am mu gën a nekkaat ci yoon wi suñu lam mu ñu xamal ne qualifié ak ki nga xam si ni moo di bi ñu jëm le 18 mars ak yaaram aar combat préliminaire yi wane nañ ko combat yu neex lay doon ndax Papa Siteu dina ci laalee ki nga xam si ni di plateau suñu lam ma ngay ci Petit Baye Fall ma ngay naqarlu comportement yenn promoteurs yi ndaxte nee nañ yenn kase yi ñuy fay mbëri ndaw yi jaaduwul te ku ci nekkul xaritu promoteur pour nga bëre loolee day doon problème kii di Mame Balla ginnaaw ndam li mu am ci kaw ki xam si ni moo di caatu yaraax ma ngay xam ne fi ni pare na pour jàmmaarloo ak yeneen adversaire bu nekkee ay jeune espoir tamit loolee tamit bañul loola ginnaaw loolu ñëw ci bébé jéen suñu la mu ñu xamal ne ndam li mu am ci kaw kii di gàkku deux par avertissement tax na mu takkaat dàllam dem entraîné ji ma ngay waajaat bu baax a baax ngir mën a liggéeyaat bu baax a baax côté physique bi suñu la mu ngay ñëw ci combat bu physique ndax ñaari ndaanaan ñoo cee dajee kon xam nga ne loolee mënta yomb ci diggante Mambala 2 ak voix vocale suñu la mu ñu xamal le 4 mars lay doon ci fa arène nationale suñu lam mu ngay ñëw ci allemand moom it le 4 mars ci lay laale ki nga xam si ni moo di njool waalo suñu lam mu ñu xamal ne combat boobee allemand ma ngay xam ne dàqu ci kawoo ndaxte kii di njool waalo bu taxawee mu daal di koy kawoo kii di bombardier suñu lam mu ñu xamal ne ci diwaanu France fa la jubali jamono ji fa dem ngir mën a faj loxom bi nga xam si nii day metti nga xam ne moo ko tere ne woon a àggali tafaatin ñu ñëw ci beneen lamb ji am suñu làmb ñu xamal ne ak bajaan production ci diggante bébé diwaan bo Mor Fadam ak la sandeer bu ñàkkurab combat ba léegi jàpp nañ daj ba léegi le 15 mars ci la ñuy laalee ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki suba incha allah